grand sëriñ maa ngi leen nuyu nuyu gi gën di ñëw di waxtaan ak yow ya, si mbir moo xamante ne mbirum lébu bi la ñun fray yof si suñu doxalin si suñu waxtaan ak suñu programme si dañ demoon ba am xalaat ni war nañ fexe nu ñu

ñoom ñëpp ñu ñëw ñu participer te ñu jiima bool lébu gi yëpp si wàll woowu si waxtaan waxtaan wa nag euh, dina am ay différents point yoo xamante ne yi mooy am parce que ñu ngi koy jàpp le quinze ak le seize le seize euh, la ñuy recevoir ñëpp à Yoff euh, ñu ni bëgg nañu nag lépp loo xam dañ koy doxal mu jëm si wàllu lebu gi bu ñu laa jóg di dem dañuy seetu ji ndigal li ba pare waxtaan ñi nga xamante ne ñoo fi nekk yëgal leen ñu accompagner ñu ñu bokk ak ñoom mbir mi ñu bokk ko liggéey bi ndax liggéey bi gën a jaar yoon parce que dëbu dana rakk topp mag du ñu def loo xamante ne dañ koy umpale Papa Ndiaye donc dana nekk sa kanam dana nekk si digg bi te dana nekk ci gannaaw ñu bokk ko organiser ko organisation bi nag idée yi d' accord jóge na si ñaari dëkk yi mais dem na ba nga xamante ne fi mu nekk ni jël na propagé na façon boo xamante ne jël na ampleur bu rëy rëy rëy ñu ne nag bu ñu laa génne di médiatiser quoi que ce soit il faut que ñu togg ak grand sëriñ waxtaan ak grand sëriñ waxtaan ak borom dëkk ba fële ba pare boole ñaari xam na moo doon message bi nga xamante ne moom la jëkk ubbee organisation bi nga xamante ne moom la ñuy def ñu bëgg nag si la nga xamante ne ni moom ko porté si la bëgg manifestation bi nga jël ko représenté ñu au niveau du président de la république xamal ne xam ne moom si haut patronage am la ñu defee mbir mi et mu jàpp si euh, ñu yaakaar lu bëri ci mom si wàllu sécurité beeg organisation beeg ñëpp xam nañu fu njoom gal am dafa am lu mu nyep ñëpp xam nañ ne fu mbappat am dafa am lu mu laaj nyu wàllu yooyu yëpp ñuy ñaan dimbalu état bi pour ñu accompagner ñu si journée yooyu nga xamante ne moom la ñuy euh, ñu am si yaakaar lol si sa parce que si taxawaay bi nga xamante ne moom nga taxawoo lëbu gi si lépp loo xamante ne lëbu gi soxla na ko te muy loo xamante ne lii lu war a mën a nekk la gis nañ sa loxo sa biir na koy liggéey ak nan nga koy defee ba sottal ko mosuñu gis mission bu ñu la dénk si lëbu gi moo am échec mosuñu ko fekkee donc loolu daf ñu doy ba nga xamante ne tax na bu ñuy ñëw di la seet si dañu ñëw ak yaakaar ju wóor xam na fu ñu jëm suñu kër lañ jëm ka ñuy waxal mooy nun ñooy moom donc moo taxoon tey ñu ne dinañ ñëw sëb la waxtaan ak yow wan la document bi comme ça bu document bi sax dama la ko bugg bëggoon a yónnee sax avant comme ça laa diñ ko bu baax a baax a baax ba xam ne di nga xam doona yi nga xamante ne yi mooñ tax a jox yëpp organisation bi nag maanaam bi ñu ko xoolee rubrique yi euh, nekk na organisation boo xamante ne bu am solo la te dafa am lu bëri loo xamante ne daf koy nécessité moo tax ci biir programme bi ñu rajuté si def si ne prévision de budget bi ak yëpp pour que ki nga xamante ne moom la ñuy waxal mu xam ne fi nga xam ne fu la ñu jëm lii la donc loolu mooy li nga xamante ne pour tënk rek suñu jóg ba ñëw fii tey pour waxtaan ak yow ba fi ñu toll nii may wax ak yow waxaguñu wax ndoom mi tànk yof sax suba lañ programme loolu donc tey jii li may wax nii day bees sax si nopp jaraaf bon nag moo tax tey ji ñu ñëw déplacé ne dinañ ñëw waxtaan ak yow si solo bi nga xamante ne moom la ñu bëgg pour delloo sa lébu gi ñëpp a dellu sa sur place ñëpp xam ne lébu gi nii la daan doxe moo tax si kii bi ñu organiser conférence bi te conférence bi thème bi rek wax na lépp parce que ne la gouvernance coutumière dans la communauté lébu donc loolu mooy doon thème conférence bi nga xamantene mom lañu def bu boobaa donc euh, foofu laay yemale kàddu gi waaleykum euh ñu ngi jéggalu ndax mbir mi demb rek lañu la wo ne la dinañ ñew tay nga accepter ñu euh ñu la koy gëremé ndax euh, kër gi fay suñu kër ndax buñ né Freyoof cinquante ba 56 day sa génération day sa jamono yow ñun dañu yem ak yow jamono ba pare di su di doon ay xarit man sama digganteek yow defe naa ne fii du ma fi gan kooku ne ndool ba ngeen màggandoo yàlla def joxe cër yem mooy jamono mu doon Freyov nga doon sëriñ Dak grand Serigne donc euh, ñu bokk xeet bi donc taxawu ko rek dafa jot ba ñu tolloo si politique ànd nañu politique.

canaliser bon dëgg dinañ ci jiim lu ñu man ñun suñu génération parce que avec la nouvelle technologie la woon dafa wànni bu njëkkoon da ngay taxaw ci penc sa ndijaay taxaw yuuxu nga daw waaye léegi boo taxawee ci penc yuuxu amaana sa doom sax du bouger ñu ne ndëg loolu dafa mat a xoolaat ñun suñu ay ñu ne ndëg ñun bàyyiwuñu dara ndax xale yi ñu ngi ci football làmba ak joom gal fofu la lebu tollu fi mu ne bo beugé ànd ak ñoom dëkk wax pour waxtaan ak ñom jubboog ñom da leen di fekk ci seen bëgg-bëgg waye ñun buñu ñu bay organiser lamba di organiser ay régate fexé rek nu ñu mëna harmoniser buntu bobu rek lañu mëna am pour harmoniser digënté Ngor wakam yof Kàmbereen ba euh, yarax loolu non lañ ko mëna duggé ñu ne nag luñ ci la def nañu wax ak ñu war a waxal boo ne lébu gi rek am na ñoo war a waxal parce que ay frais la donc boo ne frais ndombu tànk da koy ilif ñu ne nañ seeti borom bu tànk yëpp waxtaan ak ñoom parce que ñun du ñu doxe suñu initiative bopp dañu ilif parce que ay frais lañu donc boo xamee nomenclature but euh, bu lëbu noonu rek nga ko mën a doxe ñu jëkk ci suñuy kilifa pour wax ak ñoom xamal leen ne ñun de li ñu jóg nii dum po du folklore dañuy fexe rek fédéré sunu njaboot ñu leen dëkk bàyyiwuñu kenn dinañu dem si ñëpp waxtaan ak ñoom yàlla def ngay sunu waay parce que ñun bu ñu toogee Fara Yoff ñu ñu jox ñu ndomb tànk yi yow lañ njëkk a gis parce que turu maam Jara mooy suñu première manifestation yow dong ñu uyu si bon li ñuy def ragaluñu si dara nit bu la yëgee da nga koy faale. ñu ne nañu dem seeti Papa Diagne waxtaan ak moom parce que lii fañ ko bëgg a yóbbu day yemoo période boo xam ne pré-électoral te pré-électoral boo ko waxee rek tudd nga état te ñun li ñu waxoon mooy duñu kontar buur xam nga buñ nel buñ nel borom doom bi tànk du kontar buur bon ku la mën a yóbbu ci buur di nga dem seeti ko li ñu si ëppal solo mooy dañu yëkk lettre bu Macky Sall teg ko ci solo yow comme que parrain la yow parrain nga ñu yëkk ko teg ko solo loolu mooy li xamee ni mooy sunu tànk tey ndax nit booy def waxtaan say mbokk jubboo say bokk day yomb ci yow bedduñu kenn yoof gépp la ñu oo ne ñu ngay daje ak sunuy nawle yeneen i dëkk bedduñu kenn ñëpp la ñu wax nañu ñëw lépp gu moo aye lébu gi bu ayee ndëg kenn suetatul couleur duutu parti duutu dara lébu gi la ñuy ñu oo ci ñëpp suñuy tànk yi ndëg mooy suñuy tànk ci ñëpp ndëg bi ñu ñëw si yow noonu la ñuy demee si ñëpp waxtaan ak ñoom képp ku dib lébu parce que yow loolu defe naa ne doo mooy sax sax sa sa yow noonu ngay doxe donc ñu bëgg la si oo parrain dafa jeexali wax buñ nekki moom mooy parrain bi dafa jeexal wax donc euh, mbir mi maa ngi guddal waaye noonu la. fi fu ñuy joge ba yegg si file yem fii nga xam ne mënatuñ fi jàll. yonente génn fi leneen ak leneen génn fi ah diine yëpp ñëw fi war nañoo seeti lan la kon mbir mi du du du lu amul solo lu am solo ci wàllu communauté bi. foofu ñu parce que li nga xam ni moom la ñu bëgg a woon nit ñi weesuwul sunu bopp ñu ngi koy commencé ci benn exposition ba nga xam ne bi lépp la nga xam ni mooy mandarga lébu ki te ñu am ko danañ ko wane te danañ ko expliquer su boobaa tamit danañu waxtaan ci li président wax léegi-léegi ñi nga xam ne yaakaar nañu am nañ ci xam-xam mais bii nag dañuy cof rek parce que symposium lañ doon wax colloque ba yàgg ñu ne déet dafay ëpp nañ def benn table ronde rek mais lu rëy lu ñu bëgg lu rëy lu ëppalee la ñu bëgg te nag mbir mi ah tamit noo ko dayal rek noonu lay day soo ko xeebee rek ñu xeeba mu tuuti soo ko noo ko dayalee rek mu day noonu alors mën nañu table ronde mu mujj ci colloque mu mujj ci leneen ak leneen yu mel noonu ba tax na daal suñu paree ci loolu tamit dafa am la nga xam ne dafay xew ci euh, lébu gi di xew ci Sénégal yooyu tamit bëgg nañ cee wax te yemuñu rek ci def ay regat yemuñu def ay ay làmba suñu paree li koy tënk mooy la nga xam ni moom mooy jumelage bi dañ koy wutal protocole diggante ñun ak Caaroy président wax na ko léegi euh, waa mba waa waa waa waa Ngor ñu ngi ci waa Wakaam ñu ngi ci ak ñeneen ñi nga xam ne danañ ñoo seet si leen danañu ñëw ñu jàppaleñ ci loolu donc protocole la ba nga xam ne bi li jëm ci affaire géej gi li am ci affaire joor gi li am ci li jëm ci affaire euh, euh, violence yi nga xam ne mooy am yooyu yëpp dañu fexe bu dugal ko ci da nga xam ne ñun ñu lébu yi ñu mucc ci am ay problème sunu biir su amee feneen tamit dafa am mais écurie bu lamb bu yoof ak bu kayaar ak bu yoof ak bu feneen suñu dajee na fa jàmm am su fekkee dañuy jow tamit na fa jàmm am loolu mooy mbir mi du du fo fo jàmm la ñuy wut lu ñuy defar te lé réew mi dafa naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a nga ci jiite ci li ngeen bëgg mooy solidarité ak cohésion nationale maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ah di gërëm waa Freyof ci seen initiative parce que ndaw li rek lay jëriñ ah, dama daan dégg ci grand sëriñ mu ko daan dégg ci ay waajuram ne ak ndomb bu doxul jëriñul jaratul nga koy takk te yéen defe naa ne bàyyiwu leen seen yoon parce que ndaw defe naa ne digal ñu ko muy tëb miir jaar ci bunt lañ ko digal kon nag yéen jaar ngeen ci bunt bi bi ngeen toppee borom ndombu tànk yépp yëgal leen li ngeen bëgg a def ñëw ci kii nga xam ne mooy grand serigne chef supérieur de la collectivité euh, di koo xamante ne kii li mu doon daf ko daf ko jàngat ci papaam daf ko jàngat ci waajuram parce que mën ngaa bokk ci dara boo ko jàngul doo tari kon nag tari dafa am solo te li may wax du ce n'est pas pour ses beaux dama ko fekke gis ay ay nataal papam toog mu toog ci suuf nekk ab taalibe li ngeen di def nii def naa ne moom ngeen di dimbali parce que lépp lu ma a toj ci géej te ñun lébu géej la am ak suuf suuf si sax bareetul léegi géej lañu nekk lépp lu mosaan a am ci toj ci géej moom ngay gis ba waa caare toj le ak fépp fii ba jalaw ku ci yàqule moom ngay gis kon nag boo leen defaree boo leen defee lii dimbali ngeen seen bopp waaye moom ngeen gën a dimbali kon nag loolu rek laa ci amoon lu may wax di ñaan suñu boroom yàlla na ko yàlla dolli kàttan yéen tamit yàlla na yàlla teg projecteur seen yoon ba lépp loo leen ci wax ma la yof weesu ngeen yof fi mu nekk loo leen ci Cap Vert yàlla na leen si yàlla jàppale yàlla defal leen ci ndam bismillahi rahmani rahim asalaatu wasalaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq ci weer wu tëdd wi nga xam ni mooy weeru gàmm weer wu rëy ci ñun jullit yi ñu daje ci nag di waxtaan kon maa ngi leen di ndokkale di ñaan yàlla yàlla nañ ci yàlla defal ay yiw yu kawe suñu njort defal ci réew mi jàmm defal ci jullit yëpp jàmm ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu it uh, yëg gi ak jataay bi ndax ay bokk dañuy war di saafonte di waxtaan di diisoo di jàppalante te yàlla rekk tax ak askan wi nu bokk président Pedor Sarr président yi fere Yoff maa ngi lay yóbbante nuyoo ci ndey ji réew Alaaji Babacar Mbeng di la yóbbante nuyoo ci jaraaf seeni Géey di la yóbbante nuyoo ci ndey ji réew Alaaji Maguette Samb di la yóbbante nuyoo ci Duudu Mbeng Jaraaf mii toog te ñoo ñëpp suma leen limee jàpp naa ni boroom doom bi tànk yoof yépp laa wax di fedd li kóllëre gi ci diggante ndakaaru ak yoof ndax yoof mooy ndakaaru ndakaaru mooy yoof mébét bii ngeen amit ci fas yéene dox jàmm ci diggante ñaari dëkk muy yoof ak caaray yoof mooy caaray yoof mooy ndakaaru ndakaaru mooy caaro caaroy mooy ndoof jaraaf duudu male néegu ndeyam yi la jaraaf Issa Mbeng di baayam kon lii ngeen def mag ñi defoon nan ko laata ngeen di agsi li nga xam ne nag mooy li am solo te jara bàyyi xel jamono day dox te jamono bu dee dox dangay dox ànd ak moom li nga xam ni moo xew ci biir géej gi ndax fit na am na fi ci diggante caaro yi ak gàddukoti ñu xeex ci biir géej gi ñu sol sunu dal ndey ji réewu Yoff nga ca woon ndey ji réewu Ndakaaroo nga ca woon jaraafi Ndakaaroo nga ca woon président yi frais Ndakaaroo nga ca woon imaam yenn yi ci caaro yi fa woon ñenn it ci wakaam ña nga fa woon ñu dëj daje bureau ministre de l'intérieur waxtaan ci jafe-jafe yi nga xam ni moom lañ doon jànkonteel ci biir géej ñu xamal leen ni leen xale yi gaal yi ñuy am ak fiile yi ñuy am te muy jóge ci seen natti ndey seen ndeyee teggi natt jëndal leen i fiile baa ñu teggi natt jëndal leen ci gaal baa ñu am seen ndoro baay di taaw ñu ne la jëndal gaal yor kër gi kon war nañ leen di laay biir ba fii nga xam ni mo nek ci digënté yoof ba Cap Manuel ñu di fi napp nañ leen fi may jàmm ci waxtaan woowé genn na ci ni bari na ci bokki libu yi ñuy dugg ci biir géej gi yor ay jaasi di war a doxal yoon ci biir géej gi te loolu jekkul rafetul te du yoon kon tey bu ngeen jógee yéen faray yoof làmboo ak faray ngor làmboo ak faray wakaam làmboo ak faray caaroy ne da ngeen di waxtaan ci loolu ngir ak déggoo ak rafetoo ak juboo ñun du nu mën lu dul sant leen ndax ñun ngeen ko defal ndax koo xam ne bu feebaree yaa ko war a faj boo ko xaañee yaa ko war a faj su dee yaa koy dëj lu ngeen mën a def ba loola wan a bañ am kilifa gu ngeen ko wax dañ ci askanu Lebu nag ngeen jàpp ni ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp ay lawax luñu kenn ku ci ne di sa morom yor mën nga ko yore kon lii ngeen di dox bu leen ko wutal frontière képp ku ngeen xam ni doomi région de Cap-Vert la attaadu Lebu waaye te fekk fi baax te man cee am njariñ dangeen ko ca boole ndax mag ñi dañ daan wax ko fi fanaan ñetti guddi noonu la jàppee ni lébu nga kon président frère maa ngi lay sant ci taxawaay bi waa Caaroy ma di leen ñaax xam naa ni nit yi jom lañu ay nit ñu dëggu lañu lu ñu lay wax rek moo nekk ci ñoom waaye nag sànq laa fi recevoir délégation bu jóge Tëngéej ñu ñëw di ma wax mbiri rawante gaal ci mois de décembre bi bu ma ko bu ma bu ma juumulee sax le 14 lañ leen man leen man du ma ñëw ca rawante gaalu Tëngéej boobu la ndax bala may jóg damay ngeen may wax ni ay du am ndax man munumaa nungu ci am po may sa nawle ñu bokk maam baa ñu bokk néegub ndey nga dugg ci gaal gi ma dugg ci gaal gi maaw lañuy ñuy xeex loolu dafa war a xew ba tax na lii ngeen dëgmal li ci ëpp solo mooy kaaraange seetit ay xale yu yiw te ànd ak yar ngeen boole leen ca ndax nit kat dox weeru yàlla ci mbir ci as waxtu loola yàqu amoo ndam te lii ngeen di dox ndam ngeen ci bëgg ndam nag soo ko bëggee di ko dox danga koy wax ak fulla ak fayda ak dëgg mu bañ a bis bu nañu mettit lu rawante gaal boo xamante ne bi dafay daal tasaaroo ci loo xamante ni bi ku ko xool rek xeeb nu te nun du nu loolu kon yen comité de pilotage bi maa ngi leen sant di leen gërëm gis naa it ni ngeen ni président de la république ngeen ko parrainé kooku it yar ak teggin rek la bëgg ki yor réew mi tamit sañ-sañam mooy nepp ñëpp nekk ci jàmm am jàmm ndax lu dul jàmm jàmm ko gën waaye li ëpp solo mooy nan ci ànd ak yar ak teggin akuk defare te xam ne rafetoo la ñunu nee na ci sunu biir lii daal président moom mooy samay kàddu